yàlla ko yàlla sàmm mu am lu mu fi wax loo xam ni lënt la te boroom xam-xam wala ñu jàppale boroom xam-xam léeg nit ñi dañ lay far dañuy far di la bàyyi xel ñi nga xam ni jànguñu li nga wax bu dee noonu la wala du noonu bu dee noonu la nag mooy loo xam ni lu dëppoog alquran ak sunna la lu dëppoog doxalinu salafu saalix la comme léeg-léeg boroom xam-xam suy wax ña koy dégg ña koy déglu te seen àll soriwul bi ñu mën a xam ndax wax ji mu wax njuumte la wala du njuumte ala kulli xaal comme moom nu mu ko waxee benn waxtaan bu mu defoon la ci gàmmu mu indi ay position ay xalaatam mu ne gàmmu ci lu wax daal mooy xilaaf la ci borom xam-xam yi te moom da koy def ñi nga xam ne dañoo ne kullu bidaatin dalaala ñooñu dañoo gis ni gàmm moom dafa xaraam bidaa la waaye nag ñi nga xam dañoo gis ni bidaa xasana la ñoom moom dañoo dañoo jàpp ni gàmmu lu mun a nekk la lu ñu war a def la mu a moom da koy def moom loolu la wax mu ne nag mbokk bi nga xam ni moom moo dugal audio bi dafa dagg benn wax rek mooy moom fu muy dàqee gàmm mbokk moomu nag xam naa mooy mbokk bi nga xam ni mooy faral di dugal ay euh, mbir ci beneen chaîne YouTube alxuraan ak sunna moom moo def loolu te foofu taxaw seetlu mooy mbokk moomu na ragal yàlla na change turu chaîne am bi am na loo xam ne rëcc la man rëccana fa laysa minna loolu xadis la fekk nga ay mbokk yu ubbi benn chaîne tuddee ko seen tur boo ñëwee lu gën mooy nga tuddee ko beneen tur njaxas ba ñu am parce que ñu bëri ci ñoom suuf yi jàpp nañu chaîne alquran ak sunna bii nii ci la loolu jàllee fekk du boobu chaîne alquran sunna bii ñu xam mbokk yaakaar naa lu leer rek lañ fay jàllale. comme mbokk moom ragal yàlla bàyyi lu muy def te xam nañ kan la xam nañ kan mooy faral di jàllale ay waxtaanu góor gi lënt bi nag mooy góor gi ci moom dafa ne masala bi masala xilaaf la gannaaw bu ma taaliqee bu ma indee gàmmu damaa wone ci biir bu leer ni boroom xam-xam yi wuute nañu ci am na ñu ko gàntu bu baax ndax wax ne bidaa la te yonent bi daa wax ne sallallahu alayhi wa sallam kul bidaatin dalaala wa kul dalaalatin fi nnaar waaye itam dafa am ci borom xam-xam yi ñu ko ñu ko nangu wax na waaw bidaa la waaye bidaa bu rafet la bidaa bu baax la mu ngoog loolu noonu laa ko waxe ci biir balaa may tëj te ma wax ne nun dañuy gàmmu noo ngi gàmmu waaye nag ñi nga xam ne dañoo wax ne gàmmu bidaa la waaye bidaa bu baax la bu ñu war a def bu ñu mën a def dañoo cay yoxe charte charte ba moo di bu ci lu xaraam am ci ci ci gàmm gi te loolu moom sunu mag ñi loolu la ñu wax xam nga boo demee maam xaaj malik si mu ngay wax naan ala azimu layla alwiladati xisbatan ida lam yakun naxwa alxaraami udulu mu ngoog mu ne na ngeen man ngeen a màggal guddi gi yonent bi juddu woon sallallahu alayhi wa sallam su fekkee ne bi lu waral ñu bijji jëm ci lu xaraam maam borom Tuuba wax taadimuhu bissunnati yaquuduna lil jannati mu ne màggal guddi juddug sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te boole ko sàmmante ak sunna daf nuy tax a dem aljanna sunu mag ñoom lii moo doon seen gisin mu bëggoon wax na ci biir waxam mu ne yonente bi nee na kullu bid'atin la waaye nag mu ne suñu mag ñi dañ koy def yenn boroom xam-xam yi nee nañu bidaa xasana la may laaj kan la yàlla yónni ci ñun ñu war a jël ci moom diine benn mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónniwul mag ñi ci ñoom bu ñu duggee ci bàmmeel nekkul mag ñi la laaj bu ñu duggee ci bàmmeel kenn la ñuy laaj ba xam ñu ngi ko daan roy kooku moo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi gàmmuwul te musu koo digle loolu leer na yaakaar naa kenn du ci werante même ñoom ñu koy def sax ñuy gàmmu xam nañ loolu yonente boobu moo ne kullu bidaatin dalaala bépp bidaa ab réer la tayyib comme yonente bi deful istisnaa ne ba mu des bidaa xasana kull foofu li la umum xam nga lu tax ndax gisuñu feneen foo xam ne yonente bi digle na bidaa xasana wala jëfe na lenn wala boog saxaaba yi jëfe benn mbir de bidaa xasana la loolu amul yonente bi mu fi jugee tamit yonente bi ñamu ne nañu tënku ci sunnaam Aboubacar Omar Ousmane Ali amul kenn ku gàmmu loolu yaakaar naa kenn du ci warante amul kenn tamit ku digle nañu gàmm te ñoom ñooy génération bu gën ci génération islam yi tayib léegi bu ñu bàyyee ñeenti xulafaa yooyu comme ni ñu ko waxee saxaaba yi amul kenn ku ci gàmm amul kenn ku digle nañu gàmm saxaaba yi bañ fi jógee aussi ña topp ci ñoom kenn gàmmuwul kenn diglewul ñu gàmm imaam Malik mi ñu tënk ci ngiiram amul fenn fu mu diglee ñu gàmm amul fenn fu mu gàmm léegi nag tegtal bu ñuy tegtaloo naan suñu mag ñi dañ ko daan def loolu du tegtal islaam tegtalam mooy yàlla nee na yonente bi nee na saxaaba yi dëppoo nañ wala julli ji dëppoo loolu moom mooy islaam saxaaba yi nga xam ni ñoom la yonente bi jàngal ñu ca keppaaram ñooñu ñoo gën a xam diine gën a comprendre diine gën a maîtriser diine ku mu munta doon moo xam suñu mag ñi la moo xam keneen ak keneen la ñoo leen gën a xam diine moo tax yenn borom bi ne xeet bii du jub lu dul dañoo tënku fa ña jiitu tënku woon ña jiitu mooy saxaaba yi comme doy na ci firnde ñu ne gàmm bidaa la moy sahaba yi jëfé wuñ ko kenn ci ñoom jaamoo ko yàlla légui buñ né masala bi xilaaf nañu wax fi falla al qurun alquruunul mufaddala amul khilaf génération yi ñett génération yi nga xamni ni yonente bi ñoom la wax ni ñoo gën ñett siècle yi ñoo gën ci nit ñi gëna xam nit ñi diine gëna comprendre nit ñi diine moy siècle bi nga xamni sahaba yi ci lañu nekkoon beneen siècle mooy tabiini yi beneen mooy atbaa yi yonent bi salaa sallam moo ne xayru naas ñooñu la tayyib ñooñu wuute xilaaf amul ci ñoom ni gàmm bi daa xasana wala ñoom ñëpp kenn defu ko kenn diglewut ñu def ko aussi comme xilaaf boobu bu ñëwee seen ginnaaw xilaaf boobu xayru mu'tabar xilaaf boobu kenn ci sukkandiku ban xilaaf lañuy sukkandiku mooy xilaaf boo xamante ni ku nekk li ngay wax da ko teg ci nas dang ko tek ci nas nas yoy mën na ñëw ñaari nas yëpp lélé su boba nak ñu tarjih wala ñu xol wala ñu jamu khilaf dal li ñëw ci lolu mais li ban nas mo ci ñëw nañu gam amul nas nas amu ci du jëfu yonente bi du dilla yonente bi du jëfu sahaba yi du dilla sahaba yi comme naka lañuy waxé lolu khilaf la comme nañu tuddee lépp xilaaf bépp xilaaf boo xam ni mubtadi am mubtadi daa ñëw wuute ci bépp mubtadi bu indi bidaam comme nañu ko tuddee xilaaf bu dee loolu la moo tax loolu daabit boobu du dem daabit boobu du dem du dëgër comme loolu xilaaf amu ci amul benn xilaaf bu am ci loolu amu ci ci gàmmu xataa ñi nga dañoo taxsim bidaa waajib ñooñ sax gisuñu gàmmu aslan amul kenn ku ci gis gàmmu comme xilaaf boobu du xilaaf bu ñuy reconnaître du xilaaf bu ñuy nangu du xilaaf boo xam ne dañ koy accepter indi na misaal ci comme yenn yu mukabbiraatu sawt ay micro wala ay mihrab ak yu ndax bidaa la yooyu min al masalih al mursala ay mbir la yoo xam ne dalay tegtal bërëbu jaamukaayu yàlla ak di la dimbal ci jaamu yàlla mukabbiraatu sawt min al masalih al mursala mooy micro yeeg ñuy def ci jàkka yi di nodd ak yooyu loolu kal boobu kenn du wax bidaa la jamono yi def salaa salaam yooyu amul woon <laughs> mu ngi ko utiliser comme bidaa ñu ngi koy wax ci loo xam ni dañ ko jàppee diine di ci sàkku tiyaaba te jamono yonent bi munoon ko def te defu ko loolu bidaa la comme ay micro ak ay yooyu loolu bokk ci ak ay yooyu bokk ci wala sóoróor yi ñuy def tax sóoróor yi da lay indiqué tay nit bu ñewon tay bëgg xam jàkk bu gisee soro day xam ni li soro la lool kenn ku tuddee bida loolu min al masalih al mursala fu la ko borom xam-xam ni dugal comme xilaaf bi nga xam ne moom la góor gi tudd xilaaf boobu du xilaaf boo xam ne dañ koy accepté xurujul mufaddala sahaba yi taabi di atbaa yi kan moo gàmm kan moo ko digal amul kenn ku ci xilaaf amul kenn ku ci wute gàmm mu ngi ñëw ci quatrième siècle la gàmm ñëw nu mu dikkee xam nañ ko ay chrétien lañ doon toppandoo ay chrétien yoo xam ni dañ doon màggal juddu bi saa ñu ne kaale ñu màggal ñun tamit juddu yonante bi te loolu xadis da cee ñëw man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp koo xam dafa ñuru ñurul ay nit képp koo xam ne day toppandoo ay nit ci ñoom nga bokk te ñoom lañ doon toppandoo lan la moom mooy yëf dañ doon toppandoo comme di wax ni lii xilaaf la loolu dëgërul lu ñuy wax foofu mooy alqurunul mufaddala trois premiers siècles yi nga xamante ni seen lislaam moo gën a wër seenum lislaam moo gën a dëgër seeni lislaam moo gën a mucc ayib seeni lislaam moo gën a tegu ci xam-xam bu leer amul kenn ku ci gàmm te amul kenn ku digle gàmm te amul kenn ku wuute ci loolu comme bu ñuy tënku nañu tënku fa ñooñu nekkoon ndax ñoo ñooy salafu saalix ñoo jiitu ci diine jigéen ñoo xam diine comme ñu xamee ko noonu wax na ba ne bidaa xasana daa war am ay churut awalan bidaa xasana dafa amul existé wul bay bay am ay churut churut yooyu kan moo ko teg kan moo teg churut yooyu ban borom xam moo teg churut yooyu ci qurunul mufaddala loolu amul comme ñu xamee ko noonu ñu xam ni wax yi wax la yoo xam ni waxi ay njuumte la waxi ay njuumte la gàmmu moom ala kulli xaal amul dalil du ci alquran du ci sunna du ci jëfu saxaaba yi du ci jëfu taabiin du ci jëfu ki nga xam ne moom lañ tënku ci ngiram muy imaam Malik du ci tamit lu mu digle amul fenn wallahu a'lam sallallahu wa sallam wa barik ala nabina muhammad